Bienvenue à toutes et à nouveau numéro de votre magazine mondial. Nous sommes ici au stade du 28 septembre où les Lions viennent d'effectuer je suis avec deux confrères, euh, Oumar Diarra euh, Euh, bonsoir euh, Omar. Bonsoir Diango. Et puis euh, Malal Junior Diagne de la radio Futur Média. Bonsoir Malal. Bonsoir Cheikh Tidiane. Alors on va parler de la première séance des Lions du Sénégal, la réaction de l'entraîneur Alain Giresse qu'on va commenter également. Mais avant cela, il y a eu un problème ici à notre arrivée. On nous a empêchés de faire notre travail, de filmer euh, sous prétexte que le coach n'a pas donné l'autorisation. mais euh, on a vu euh, nos confrères de Canal qui avaient toute la latitude de filmer la séance des Lions alors euh, Malal euh, mbir moomu euh, lan moo ci sa xalaat ak coono yi ñu daj yëpp ngir ñëw couvrir lii je pense que waroon nañu teeroo anam bu ne bi. li ma ci jàngat Cheikh Tidiane mooy bu nu waree wane ay nataali équipe nationale ñi ci yelloo te tax ñu war a def loolu mooy Sénégal kon bu ñu nee Sénégal. ay image Sénégal équipe nationale bu Sénégal ay télé Sénégal ñoo ci war a am d'abord priorité filmer ko wan ko waa Sénégal laata nu ko jox beneen réew bu ko war a gis tubaab yi nuy jël di leen teg ci kaw Sénégal bi loolu dafa war a jeex parce que mënuñ wax équipe nationale Sénégal ay nit daw presque mille quatre cent kilomètres ñëw pour liggéey pour jël fii li fi xew wane ko réew ma ñu jël ñooñu bedd leen tegee leen càmmooñ jël ay nasaraan yu jóge fu nu xamul ñu ñooñu ñoom ñooy liggéey fédération Sénégal bu football bi dafa war a bàyyi bodd bi te tuddee njaaxaan naay bu far dem ci presse sénégalaise la war a far waaye warul di far ci presse tubaab bi parce que tubaab bi nag dafa ñu xamal leen aussi ni buumu njaam yi dog na léegi dana moom suñu bopp am indépendance loolu mooy dama ma ci bëgg wax ci commencement bi waaw. waaw Omar euh, euh, coowal canal bi dañoo gis ni depuis Batala mais boobu ba léegi dafa mel ni euh, dara réglé wu ci. waaw man Cheikh Tidiane dama yaakaaroon ni xëy na bi ñu jógee ci coow bataa boobu fa amul nga xam ni canal lu ne jib na fi même ci seet beneen sélectionneur bi am na lu ñu ko accusé am na yu fi xew yaakaaroon naa problème boobu réglé woon nañ ko ba nga xam ni presse sénégalaise sino les médias yi nga xam ni ñoo jóge Sénégal bu ñu ñëwee war a jege équipe nationale dootul am problème mais tey li ñu jot a gis fii si stade 28 septembre lu lu lu lu yéeme la ak lu doy waar la parce que mënuñu wax open presse loo xam ni dañ ni presse sénégalaise dañu war a ñëw couvrir lion yi mën a joxe Sénégal citoyens yi fi nekk yëpp ak yi nekk feneen ñu mën leen xamal exactement première séance bi lan moo fi xew ñu ñëw ñu ne caméra du fi taxaw même ñi nga xam ne presse écrite la ñu nekk du fi taxaw photographe du fi taxaw ñëpp da ngeen di yéeg ci kaw ba ñu pare man yaakaar naa ni loolu du liggéey bu rafet du du doon loo xam ne tey jii war nañ ko mën a nangu et que tout journal sportif képp kuy sénégalais def naa war nga ko mën a dénoncer mu doon loo xam ne dañ ko fii dindi ndax mënuñu defal priorité ay télé yoo xam ni euh, basé wuñu Sénégal nekkuñu Sénégal fay ñu impo Sénégal fay ñu taxe Sénégal li ñuy liggéey duñ ko investir Sénégal sinon bëriwul comparé ak ñu peut-être TFM ak yeneen télé yi fa nekk donc je me dis que quelque part lu ñu war a régler la mu jeex une bonne fois pour toutes parce que comme ni ko Malal waxee def naa buumu njaam yi dafa war a dog une bonne fois pour toutes mu jeex et nit ñi xam ni ku nekk dafa am loo xam ne yaa ko moom et que équipe nationale bi defe naa euh, ñëpp a ko bokk mais ñun sénégalais ñun ñoo ci gën a yey waaw ñun ñoo ci gën a yey quoi donc nañ bàyyi ñu def suñu liggéey parce que li def lépp mooy xamal sénégalais yi nga xam ni contribuable sénégalais am muy lekk di am lu muy naan di am lu muy sol que ni lii moo fi xew lii lañ def lii fii lañu toll donc loolu rek mooy suñu mooy suñu liggéey donc bàyyi beneen télé étrangère mu ñëw di filmer et que télé sénégalaise yi mënuñu ko def ba daw ay kilomètres et kilomètres ñëw fii pour def ko donc je pense que c'est un problème boo xam ne war nañ ci wax régler ko une bonne fois pour toutes. voilà problème bu ñu war a régler une bonne fois pour toutes nous allons fermer ce chapitre donc euh, pour entrer de plein pied dans la séance d'aujourd'hui

du, du terrain euh, est, est, est, est, banni. Donc les joueurs pourront s'exprimer de la meilleure des, des, des, manières sur une excellente pelouse. Maintenant, le problème, ce sera la chaleur. ce sera la chaleur. Maintenant, on sait que les Guinéens, ils l'ont prouvé tout à l'heure à l'entraînement, ils étaient nombreux à applaudir, à chanter les, les gloires de l'équipe nationale du Sénégal. Donc on peut espérer qu'ils seront nombreux avec la colonie sénégalaise qui, qui vit à Conakry et dans les, dans les régions de, de la Guinée, qui seront nombreux pour venir pousser les lions à la victoire. Maintenant, ce sera à eux d'avoir cet esprit de, de fighting dire que nous jouons à l'extérieur, le pays a besoin de victoires pour souffler un peu, l'équipe nationale en a également besoin, c'est à eux maintenant de mouiller le maillot, de se transcender, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour gagner cette équipe, pour gagner, pour gagner ce, ce match, battre l'Angola et conforter la première place. toutes les conditions sont, sont réunies, excepté la chaleur, et ils doivent pouvoir s'adapter parce que c'est des gens professionnels. Voilà, euh, Omar Diarra, euh, vous avez suivi euh, plein de séances de l'équipe nationale du Sénégal avec d'autres entraîneurs. Aujourd'hui, c'était la première d'Alain Giresse sous nos yeux parce qu'il euh, s'est entraîné avec les Lions, mais c'était à Paris. Mais aujourd'hui, c'était la première fois. Vous avez observé. Et est-ce que vous avez remarqué une différence dans l'approche par rapport à ce qui se faisait Oui, Diao, je pense que l'approche qu'on a eu à déceler dans cette première séance d'entraînement de Gires ou ses couleurs officielles en tant que sélectionneur, moi je pense que c'est le fait qu'il qu s'est voulu un peu professionnel. Il est, il connaît bien l'Afrique parce qu'il a eu à coacher le Gabon, le Mali. Donc c'est quelqu'un quand même qui s'y connaît. Et quand on l'a interrogé après, tu as vu qu'il a dit que son, son seul souci c'est qu'il a de très bons joueurs qui s'adaptent très vite aux conditions. Donc je pense que comme l'a dit Malal, euh, même si la chaleur aujourd'hui reste un problème majeur, Euh, sur lesquels les gens doivent quand même se pencher pour parler parce que nos joueurs jouent depuis quelques semaines ou bien ils viennent même depuis hier. quand ils sont arrivés, ils quittaient des climats tempérés. je pense que euh, c'est des conditions sur lesquelles euh, qui ne devraient pas poser problème. En ce sens que c'est des joueurs professionnels, c'est leur métier de jouer sous la neige, qu'il vente, qu'il pleuve ou bien qu'il qu qu qu fasse, fasse, chaud. Ils sont obligés de, de s'adapter et je pense qu'ils devront le faire. avis, mais ce que je vois et ce que je constate quand même me rassure en ce sens que euh, cette pelouse même est, est, est, mieux gérée que celle de, de Léopold Senghor si on voit ce qui a été fait. Donc je pense que le reste, ce sera aux joueurs de prouver sur le terrain mhm. et de, de, de, de faire en sorte qu'au sortir de ce match, qu'au qu qu soir de ce match contre l'Angola, que le Sénégal puisse être leader de ce groupe parce que c'est ce qui importe et c'est ce qu'il y a lieu de faire. Quoi. Voilà, avant d'en venir à l'Angéresse qu'on va écouter tout à l'heure, Malal, dañu remarqué ni Giresse euh, souvent euh, dafay faral di euh, utiliser humour ci méthode mu mel ni loolu baax na ci parce que soo xoolee entraînement bi sànq bi ñu ko gisee xaw nañ ci séntu quand même bonne humeur ci groupe bi. xam nga mag ñu nee nañu wa mbaxane woy woyof moo ko bàyyi ci bopp. dëgg la loolu la ñu nemmeeku ci ci Giresse ci misaal dafa woyof daanaka nag. pexe la moom mu laal ngir fexe ba li mu bëgg wax xale yi li mu bëgg a dugal seen bopp li mu leen bëgg dëgtal ci ñu def ko bu waxtu defante jotee noonu xëy na la jàpp ni moom moo gën a gaaw pour def ko ndax boo xoolee équipe bi ay professionnel lañu ñoom ñëpp duñu yàlla yàlla baaxal na leen nu yor ba liw donc soo leen bëggee imposer autorité léeg-léeg mën na indi réticence maanaam mën na ñagasal diggante bi waaye soo ñëwee woyof donte yaay njiit li nga woyof ñoom jën a tax ñu xam ni liggéey moo tax ñu bàyyi seen club ci Angleterre bàyyi seen i soxna ñëw ci Sénégal liggéey itam moo tax Sénégal yëkkati xaalis jox leen pour ñu nekk dans de bonnes conditions dañ koy def ci ci woyof foog naa euh, dégg nañ GES dégg nañ jàmme tàngoor bi euh, feeñ na ci seen euh, déclaration ginnaaw bi ñu defee entraînement ba pare ñun sax soo ñu xoolee fee ñu toog nii ña ngi koy yëg bu baax a baax mais comme démb bu na kundul bi ñu ko jëlee aéroport loolu la ñu doon wax ñoom ay doomu Sénégal lañ tàngoor waru leen jaaxal war nañ mën a kiyanteeg moom. waaw loolu loolu lu mën a nekk la loolu lu mën a nekk la xëy na lu ñuy wax naan gattax su yàggee ci biir ndox sax mënul tax mu doon jasik je pense que bu na démb presque loolu la wax et lu ñuy nangu la lu ñuy nangu la euh, et que sànq maa ngi koy wax ñoom c'est des joueurs professionnel seen liggéey la mu ngi mel ni comme yow tey ku la indi ci métier des média peut-être am na loo xam ni xam nga ko ci keneen bu la ci fekkee dina doon problème boo xam ni daka ciy am donc ñoom tey ils sont obligés